yàlla fii ci Jëlëxaar ci cër ma yàlla dolli jox ma ko fal ma ko moom yàlla parce que wa maa tashaauna illaa an yashaa allahu rabbul ma ko wax ba pare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rafetlu ko ànd ci wallahu al-mu'ti wa ana qaasim mooy séddale kon yonent bi sallallahu moo ko sédd Cheikh Tidiane di xalifaam ne lépp lu jugee jaar lu jugee ci yeneen soosam mi ngi ñëw ci ambiyaaw yi lu jugee ci ambiyaaw ci man lay jëm jëm ci arwaax yi aqaab yi ak ila saa'ir al man gëm naa loolu comme Cheikh Tidiane moo ma tëbb loolu waaye Cheikh Ibrahima nga xam ne mooy mooy man ma waxoon ne dégg nga ku jot nga sa càkkutéef àddina ak àllaaxira taxi àddina ak àllaaxira ak alal ku weddi loolu man maay xalifatu Cheikh Tidiane yi ngi déggee foo ne du fa déggee nopp dafa liggéey yu waxambaane Cheikh Ibrahima moo ma jagleel jéer bi waaye Cheikh Mamour mi nga xam ne moo ko liggéey sonn ci waaye nag gërëm ci sant ci nga xam ne moo jëmmoo bàyyi tey muy Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass mu jaamal la lu ma gëm la ci sama xol bi nga xam ne mu ngi taxaw xam-xam taxaw diina di ku simple te yëkkati ku kawe nit ku baax nit ku tabee nit ku xam ne philosophie la di xam ne savoir la man du ma neexal kenn mooy Cheikh Ibrahima radiyallaahu anhu te ko man maa ngi koy jaamu kon ku baax la mooy Cheikh nañ koo gën a fonk war nañ koo a déglu war nañu gën a topp ay waxam war nañu gën a barkeelu ci bàyyi ci moom ci may ko kon moom it sant ndax man laa yashkur naas moo wax ma dégg bu sëñ mun xamit toog wax ba pare waaye wax na ne ànd na ci bu fekkee ne maamul moo wax maamul te moom boo xoolee maamu Cheikh baa ngi ci biir ñoom ñoo bokk génération rakkam la dégg nga taxaw na fi doon def doon yëkkati di def lu baax lu ne mu def ko fi dégg bu doomam taxawee ne bëgg na ansaaru diin gannaaw bu sëñ mun xam ne waxee man dinaa gëm yaakaar ne dana fi def dara ànd naa ci def nii loxoom yi ànd naa ci joxe naa ci ndigal dem leen ngeen waxtaan man nag gëm naa ne ansaaru diin boobu ba ko sëñ bi waxee te yàlla dogal ko rek la loolu am xaadim laa nag du poste bu muy nangu naa ko te maa ngi xamal àddina lépp lépp lépp lépp duma ci mos a dellu gannaaw am na ba pare na ñëpp man noonu laa gëm te ku bëgg lu baax te man loolu ku ko gëm naa ci duma ci mos a dellu gannaaw du lu ñuy delloo maa ngi ñaan ngeen ñaanal la yàlla yàlla defal ma ci tawfiq yàlla defal ma ci barke li li nga xam ne moom na kii waxoon Abdullah ibn Abbas Thierno Hassan dem daan ko nettali ne sama da doon séddalee naan di naan ne sama ndeyjoor rek xale la xaaral ma jox mag mi mu ne ko lii sunna ma jox la waaye mag ñaa ngi toog ma jox leen bu ma féetee càmmooy te lislaam ca ndeyjoor lay jëlee mu déglu yonent saa sam ba mu tëdd mu dëggal yàlla ak yonent ne ko nag xazri minka laa awtii li ahadin xazri minka laa awtii li ahadin xazri minka laa awtii li ahadin sama cër ci yow du ma ko jox kenn sama cër ci yow du ma ko jox kenn sama cër ci yow du ma ko misaanu xaal boobu ma xaam boobu lay waxee man tam sama cër ci yàlla te mooy ko xeew suñu salaatu cheikh ñaanu bàyyi suñ maamun ñes mu moom xalifa bi wax ma ma dégg duur lu ñuy changé xalaas rufiatil aqlaam wa jaffati suhuf képp koo xam ne da ngaa bëgg ñaari ansaaru diin am yaa ngi bokkaale te pay bi bëggul loolu benn ansaaru diin la buñ ma xiir ci buñ defee leneen ma continuer di uyoo beneen ansaaru diin te ansaaru diin bi ma yor nii mooy ansaaru diin bi bàyyi la ma doon nag ci laay woy suñ ko confirmé loolu laay def suñ ko confirmé wu loolu laay continuer bi tàllal loxo nag képp kuy wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah képp ku bëgg bàyyi ñun ñaa ngi def fii di def fii nit da nga ñaar nit tuddee la nga joxe fii joxe fii ñaari doomi bàyyi wala sëti bàyyi ñëw ca nga jox kii àddee jox kii àddee ya jaama bàyyi nga nii taalee bàyyi bu bëgg ansaaru diina ngi nii ci loxo bàyyi bëggee woon dana nekk xaati yu bàyyi nekk seen xaada maa ngi leen tàllal loxo waa dina maa ngi leen tàll loxo yéen waa Kaolack maa ngi leen tàll loxo yéen waa Sénégal maa ngi leen tàll loxo yéen waa jullit yi ngeen nangul ma baal ma di ma xelal te ñu mbokkoo ci yàlla ngeen di dimbalante moom ci xelaat ak lu leen yàlla moom loolu may wax ne compte bi ñu la ubbi wala bi ñu fi nekk ñu war koo confirmer bu dee loolu la maa ngi seede fii di ko nangul yàlla di ñaan yàlla même ci taw fii nag ndax wax ak jëf yombut wax yombut damay jëf yombut damaa fas yéene associé ci ñëpp ku nangu ci muqaddam yi ci kilifa yi ci sët yi dégg nga sama boobu ñoo bokk seen góor ak jigéen ñu ma ci mën a xool ñu ngi ci mën a oo naa oo ñu def benn groupe équipe boo xam ne ni ñu mu gën yaatoo baax na benn dërëm du génn lu dul ne ñoon ñu tànn te mbooloo la ñuy doon ci catégorie bu nekk dañuy fay am chafafiya dañ koy nangu ba pare ñooy tànn signature yi yee génnee su boobaa man ma soog a signé wala bu leen neexee sax sama signature bu mu ci bokk waaye sama aval na am ak avali xalifa gi bu dee wéyal na li wax loolu laay wax fii ci jotaay bii nii utuma ci xaalis xaalis dafay yàq moo tax ma njëkk a wax lii ngir bañ ayib dugg ci mbir mi maa ngi wax tamit ne li nga xam ne mooy dajee boo xam ne dégg naa ko te woowuñ ma ci te may président Ansaarud-Din tey ci zaahir ak ci baatin ñu ne dañ koy defee kër gan suba ci 11 heures sëñ mun xamit na àndu ci secrétaire général bi àndu ci ñu ne dañ koy def ma ne ci turi taalibe yi gëm li ma gëm ànduñ ci buñ fàttee ne ansaaru diin ndigal lay wéyee du parti politique déedéet ansaaru diin du utukaay xaalis bàyyi tëralu ko ngir loolu maa gën a bon gën a xeebu nag waaye dama bëgg tuub dabaatal ñu ñëpp ñu dabaatal nañ yërëm sëñ sëñ Mahi kilifa la sama bàyyi la li may xoolee sëñ Mamour moom laa koy xoolee moom ñu jur ëpp nañ ma cër ci moom ci jën ko jege ci den waaye doomam laa sama doom la may ooyee nañu bàyyi fekk kilifa gu toog ba wax waxam muy xalifa Cheikh Ibrahim ñuy ñëw ñii jugee Dakar ñii jóge feneen ñii jaar ci traite ak yeneen di ñëw di taajaat sëriñ bi loolu du teggin di waxaat ay wax bu buñ bëggoon lu baax bu tax oowuñ ma oo sëñ Muna ñu bokk toog ñëpp li ñuy wax noo ko suñ kanam lu tax ñuy oote dajee kër gan oowuñ ma ñu bokk wax sëñ dafa dem leen waxtaan man nag daa topp ndigali sëriñ bi waxoon na sëñ Muna ak man dem leen waxtaan ma jàpp ne sëñ Muna nam doxalee noonu la te gën naa ñu doxalee doonu la xëy na am nañu waxtaan ak mandu naa ci buñ gisee ñoom ne waxtaanut ak ñoom man de waxtaan naa ak man waaye nag lim def def na ko ci ndigal la nekk man mii nag danaa jox ay tànk man tam pour yaatal waxtaan woowu mooy lan à partir de suba su ma dundee ci taw danaa seeti ñëpp ñu ma mën a seeti su daan bàyyi soppe yi sama génération su population talibé yi ndànk ndànk ndànk ndànk waxtaan ak ñoom ci xalaat yi ba pare jàpp benn ba samedi bii di ñëw bu ñu dundee fekkee ko danaa def oote kër sëñ Mamour ci na Baye ci buntu kër ga benn ñaar ñett teew lu ko ëpp teew ñu bokkaat waxtaan li ma dox noonu yëpp ñu ko sëñ bi def noonu bu ngeen waxtaanee pare ñëw leen ci ñun danañ àndaat dem ba ci sëriñ bi wax ko la ñu waxtaanee xaaruma def wate ñi naan ànd nañ am gëm naa ne am na ba pare waaye nag danaa diisoo ñu bëri bu ñu rafetloo ànd ak man liggéey boobu danaa dem présenté ko projet bi nga xam ne ci xalaat yi gàtt du lépp ñii laa yaakaar ñu ngay defalee ansaar bi ci kaw diisoo mu yel lu mu dogal yàlla loolu la dogal bu gërëm looyee yàlla rek samina wa atana laa ci waaye duma dellu gannaaw ci li ma nekk loolu laa doon wax ci ay kàddu maa ngi sant ñëpp maa ngi gërëm ñëpp en tant que taalibe nag ak ku bokkum ansaatin ci joxe doon te gërëm sax mos teg ñun taalibe yi gëm li ma nekk ànduñ ci ay nit rek yuy dajee tënk seen waxtaan génn def déclaration wala ñu ne dañuy ut beneen président intérim loolu lañ bind ci këyit gi man bàyyi ma mu d'accord ma ci lu en tant que membre te it danaa def pétition ñoo xam ne ci set yi ak soppe yi ak taalibe ñoo xam ne d'accord ci xaalis bi ansaar din di joxe fan lañ koy def am nañ ci ay maalumaat yu leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ nañu ragal yàlla ci ansaaru diin nañu ragal yàlla ci baay nañ ragal yàlla ci pays bii duma wax sama pays maam waaye sama pays sëriñ bii di sama maam lépp lu ma mën lépp lu ma gis muy munkar danaa fexe man dañ ci suma ci nekkoon su ma ci nekkoon nekkoon danaa tuub su ma ci nekkutoon danaa gën a moytu waaye képp ku ko def dinaa jàmmaarloo yow ndax bàyyi ma loo daafewu dégg nga ana diinul xalifi bi kël-kël yi man damay défendre l'islam sama dënd ji ku bëgg a ñëwal jàkkaarloo ma man nag aw ma dara ne dañ koy seetaan ci pays bi moo wax ñooñu nag ak a ngi leen di oo ci waxtaan woowu ñoom ñoom ñëpp ku ci d'accord na ñëw ku ci d'accord tamit ne dañ bokk dem ci xalifa bi wax ko li ma xalaat loolu mooy xatuwal uula am na yeneen xatuwaat maa ngi sant maa ngi gërëm maa ngi ñaan yàlla maa ngi yasa sama mbëggeel ci baay maa ngi nuyu ñëpp di santaat ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla yokk leer Cheikh Mamoun yokk leer mboolem mooy dawee ci njabooti baay gi ak jullit ñi ak saalihiina yi wa aaxiru daawaana an